Nous avons nañu yi du euh, centre état civil yi centre état civil mais il aussi commune yu bare yo kenn laalu fa dara aussi il faut ñu ñu wax ko commune yo ñu laal ci biir amna ño centre état civil waaw laal nañ ko lolu nak ñu koy nous fi di wax ni parce que euh, centre état civil nga sa wante lepp lu gouvernement bi man à travers ministère bi ma président Macky Sall dénk dañu dajé ak maire yoyu waxtaan ak ñom seet ñu mëna fexé au maximum ñu mëna reconstituer sen état civil jàppale leen aussi ba service public bobu mëna continuer baña mëna taxaw. processus le d'ailleurs am nañ projet bu bu am solo bo xam da fay numériser digitaliser état civil fukki milliards ak juroom ñet ñu ci liggéey mi ngi avancer bu baax a baax a baax wante loolu du ben raison même buñ ko numériser woon ah. ku euh, ay nit di lakk état civil loolu njaaxum gënu ko mën a rëy donc ñoo ko def euh, euh, buñ leen xamee en tout cas yoon dina def li mu war a liggéey mais nit ñu ñu dalal seen xel dal nekk ci jàmm ndax Sénégal réewu jàmm la na ñëpp woote jàmm li ci des mooy mesures yi président Macky Sall jël nga xam ni njariñu askan wi la njariñu xale yi la ñun ñëpp ñu rafet lu ko.